I went to the market. I went to the market. dama demoon marché ba. I went to the shop. dama demoon ci bitig ba. I went to the mosque. dama demoon ci jumaa ja. I went to the church. dama demoon ci église ba. Yesterday evening with Ali. I went to the market yesterday evening with Ali. démb ci ngoon ànd ak Ali. yesterday evening. with mooy ànd ak. I'm going with you. maa ngi dem maa ngi ànd ak yow ñu dem. to buy something to eat. to buy something to eat. ngir jënd lu ñu lekk. jënd dara lu ñu lekk. I would like to eat. dama bëgg lekk. man nag ba ñu demee I bought one kilo apple I bought mooy ma jënd one kilo apple benn kilo pomme Ali didn't buy anything Ali didn't buy anything Ali moom jëndul dara ni ngay waxee ne diw jëndul bu dee góor la he didn't buy wala nga wax turbine bi ne didn't buy bu dee jigéen nga ne she did not buy maanaam didn't buy Ali didn't tell you that Ali waxul loolu de. Okay, but I didn't tell him anything. But I didn't tell him anything. waaye man waxuma ko dara man waxuma ko dara but I didn't tell you that waaye man waxuma la loolu de hmm I will tell you that naa la wax loolu dégg nga ok he didn't tell me anything he didn't tell me anything he didn't tell me anything ah moom itam waxul ma dara. he didn't tell me anything moom itam waxul ma dara hmm. <laughs> ok I didn't tell him he didn't tell me waxuma ko waxul ma on our way back home on our way back home on my way back mooy ci sama yoonu tournée su may ñibbi on our way back mooy ci sunu yoonu ñibbi ba ñu ñibbi ci sunu yoonu ñibbi bi waaw on our way back home ba ñuy ñibbi ci yoon bi I worked on the right side man I worked on the right side may dox ci wàllu ndeyjoor man ci wetu ndeyjoor gi rek laa fatu di dox buñ ne nag side work mooy fi ñuy dox noonu ñi nga xam ne ñoo dugg ci oto wala moto ci pegg tali mooy side work he worked on the left side he worked on the left side ah moom itam muy dox rek ci wetu càmmoñ bi I worked on the right side maa ngi dox ci wàllu ndeyjoor moom maa ngi dox ci wàllu càmmoñ waaw what will happen lan moo nar xew hmm, I bought jënd na but he didn't buy waaye moom jëndul when we got home when we got home ba ñu agsee kër ga wala ba ñu agsee ci kër gi hmm, when we got home ay ba ñu agsee ci kër gi nag ah when we come back ba ñu ñibbisee hmm. when we come back ba ñu ñëpp see I went to the kitchen man doxuma dara defuma dara I went to the kitchen ma dem ci waañ ba I went to the kitchen mooy ma dem sa waañ ba I went gisoon nañu ko ci baat bu njëkk bu muy went muy demoon walla dem to wash my apples to wash I went to the kitchen to wash my apples ma dem ci waañ ba ngir mën a raxas samay pom waaw I went there to work ma demoon foofu ngir liggéey hmm, after that I took the knife after washing ginnaaw bi ma raxasee ba pare I took the knife took mooy past teg maanaam ma jëloon ma jël paaka ginnaaw gi ma jël paaka bi I took the knife knife mooy paaka I use the knife damay jëfandikoo paaka I took out the apples one by one ma génne pom yi benn par benn I took out gis nga li ma la waxoon léegi mooy past take mooy take out mooy génne maanaam pull out ba léegi génne benn par benn and I cut them one by one and I cut them one by one ma dagg leen benn par benn kaat moom past bi kaat rek la moo tax du am benn changement I count them one by one ma dagg leen benn par benn he I didn't over anything to Ali joxuma ko dara I didn't share the apples with him man séddoowuma ak moom pom yi de déedéet I didn't share the bed with Moodu man ak Moodu bokkuñu lal de share bu ñu ko waxee mooy bokk walla tasaare ok bye bye.